rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahuma fi xayaati wajal waadi watanala bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa nabiyina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida bismillah téere bi mooy téereb Sëriñ Tuuba bi ñuy tuddee naxju qadaa'il xaaj fi ma min al adabil muriidu yaxtaaj li Cheikh al Xadiimi nafaana allahu bi barakaatihi amiin li mooy bi sëñ Tuubaa bi muy tuddee ndax ju xadaa il xaaj téere bi nag téere la boo xam ne foo ko takk ci njariñ weesu na ko mu ngi jàngale lu jëm ci wàllu ay teggin sëriñ Tuubaa li tax mu taalif ko wax na ko ci biir nee na ay mbokki taalibe yu bari ñoo ñëwoon fa moom ne ko dañoo bëgg nga taalifal nu téere boo xam ne day jàngale wàllu teggin ndax dañoo bëgg a am ame dañoo bëgg a am ay teggin dañoo bëgg a teggin mu ne ma xam ne loola lu war la moo tax rek ma daal di jóg gaaw defal leen téere bii sëriñ bu ñuy tuddee acheikh alxaaj wala addalxaaj téere la boo xam ne moom moo ko wesaroon moo ko wesaroon mooy moo ko taalifoon waaye nekkutoon way sëriñ Tuubaa nag jël ko def ko ay way def ko ay way def ci njariñ yu bari loo xam ne sax nekkutoon ca téere boobee yàlla na ko yàlla nangul te yàlla defaral nu ci defal ñu ci ak defaru defal ñu ci ngërëmam ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi ngërëmal sëriñ bi waaye lépp nag suñ boroom fayal nu sunu kilifa yu baax yooyi muy Cheikh Abdul Haaji mi nga xam ne moo ko wayoon ak sëriñ bu mag bi radiyallahu anhuma moom mi nga xam ne moo ko moo ko way nii ngeen ci ànd seen mbokk Alioune Badara Ndiaye at-Tuubawiyu téere bi fii la tàmbalee mu ne bismillahi ci tudd turu yàlla laay tàmbalee sama téere bi arrahmaani yàlla mi aji yërëm bépp mbindeef ci àdduna arrahimi yàlla kay aji yërëm bépp mbindeef bu ko neex bu ko soob ëllëg yowmal xiyaam wasalla yàlla na dolli tedd nga allahu yàlla ala sayidina ci sunu sang muhammadin te moo muhammad wa alihi ak ci ay ñoñam wa sahbihi ak ci saxaabaam ya wasallama tamu dolli ak wóolu tasliman ak dollee wóolu dafa tàmbalee ci tudd turu yàlla ni ko yonent bi santaane ne jëf ju ngeen jëf te da ca yaakaar njariñ ca yaakaar barkeb suñ boroom dee leen ko tàmbalee bismillah bu ngeen ko deful nag jëf ja mën ngeen ko def du am barke wala barke ba day day manqué mu teg ci julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa ak ay ñoñam mooy ña bokk moom deret ca gëm ko ak ay saxaabaam mooy ña doon dimbale ci li ko yàlla yónni te mu dolli leen ak wóolu te noonu alquran moo ko sant ci suratul ahzab inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu mu julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xasbuna doy nanu allahu yàlla amul morom alwakiilu kadikuñu wéeru loolo ci alquran la bokk xasbunallahu wa ni'mal wakil ba dama suuratu ali imran nanga ko ca fekk alladina qaala lahum nnaasu inna nnaasa qad jamacuu lakum faxshawhum fa zaadahum imaana wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakil yi keroog bi benn waay ñëw bëgg leen a tiital di leen wax ne yéefar yi ñu ngi dajale ay ngànnaay bëgg a ñëw dal seen ko jekkali leen benn yoon ngir bëgg ñu tiit fekk loola daf leen a dolli yàlla ñu ne bisimilah kon nag nañoo ña ñëw ñun day yàlla doy na nu sëkkata ci moom rek la ñuy wéeru lu mën a am rek ñun ci yàlla rek lañuy ñuy dellu kon naa doy na noonu ñun jullit ñi allahu yàlla wa ni'mata amul morom baax na lool al wakiilu yàlla mi nga xam ne moom mooy ka ñuy wakiil mbir yi ki ñuy delloo ci moom mbir yi ka ñuy wéeru ab jullit foofu la war a nekk wërta firfiri wërta rabrabi daa war a doyloo yàlla rek innamal amalu naka jëf yépp bi niyaati aji takku ci yéene wa innama li kulli imri'in naka ñeel na bépp cem cem mooy nit maa nawaa la mu yéene loola booy seet xadiis la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ba ci saxiixul buxaari yu da nga ko fekk ca tàmbali ga nee jëf la takku ca lay tax jëf ja rëy wala jëf ja tuuti mooy yéene ja rek mooy yéene ja nit ki mën naa jëf jëf ju rëy wala mu joxe alal ju bari ay million fekk du ca am dara ndax yéen a jaa sellut ndax ngistal la ci jublu wala bëgg gis leen ma waaye nit ki mën naa jëf jëf joo xam ne dafa nurul ndaw nii ni ngi saraxe benn doomu tàndarma wala benn doomu sump wala joxe ab dërëm yàlla fay ko jot tuyaaba joo xam ne ay million la ndax yéen a jaa rafet kon jëf yi ñu ngi rawantee rek ci yéen a ji bu fekkee nag yàlla dogal na nga nga yéene dara waaye mënoo jëf dara ba dara boolo du tee yàlla fay la yéene ji ci ak mbaaxam du tee yàlla fay la yéene ci ak mbaaxam waaye daal kenn du toog rek mën a def defoo naan maa ngi yéene déedéet mu ne nit ku nekk li nga jëf rek loola ngay am wala bokk la nga yéene rek loola nga jëf joo mën a jëf yéene jëng ci yéene rek incha allah loola mooy compte wa fil xikami nekk na ci xikam nekk na ci xikma xikma bu ñu ko waxee mooy wax ju gàtt te am njariñ mu ne wax nañ ci wax ju gàtt te am njariñ man talaba ku sàkku al amra mbir wa jadda te farlu ca sàkku ga wajada mu am ko wa man qaraa ku fëgg al baaba buntu ba wa lajja mu soow wa laja mu tàbbi wa fiiha bokk na ci xikam nekk na ci xikam man am saka ku tée boppam anil fuduli walis ay caaxaan udda ñu limaale ko min arbaabil uquli mu bokk ca woroom xel ya wa fiha bokk na ci xikam man la yusxitu ku dul merloo nafsahoo boppam wala bakkanam laa yurdi du gërëmloo mukk rabbahoo boroomam wa fiha nekk na ci xikam man faala ku def maa shaa lu ko neex laqiya mu dajeeg maa saa lu ko naqari wa fiha nekk na ci xikam man laazama ku taqoo naak mujahadata nafsihi jihaat ak bakkanam faaza kon mu tuufu kon mu texe inda xululi ramsihi fa wàccug bàmmeelam ba fa wàccug lañu suulam wa fiha nekk na ci xikam man taabaa ku topp ar rasula yonant bi naa la mu am xayra suul ngën gi fajug aajo nee na daa bokk ci xikam ba ci olof am na ko olof da nga olof njaay nee na daa di wax ab baat baat boo xam ne boo ko seedee day gàtt ci ay baat waaye maanaa mi day yaatu ci misaal ñu ne olof njaay nee na mara naan bum la taxa naan póotit loolu wax ju gàtt la mooy bànneexu àdduna bum la taxa def ak mooy yàlla goo xam ne mbugal mu dul jeex nga cay jële yàlla ñu ci yàlla musal mooy bëgg àdduna bum la taxa wor sa mbokk nga ne boo ko toppee day yaatu yaatu mën nga ci indi maanaa yëpp yëpp ba mu jeex mooy daal bu la dara jaral loo xam ne lu ñaaw la wala ñu ne la olof njaay nee na xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak mag gis nga baat bu gàtt la waaye li muy tekkiwul loolu dëgg-dëgg li muy tekki rek gën naa yaatu loola mooy nit bu yiwee mën naa bokk ca way ñiw ña ak doonte ay atam néew na dégg nga bokk na ci tamit mooy nit kat bu fekkee am na xam-xam mën nañ koo boole ca waram xam-xam bi ak ak lu ay atam néew néew néew mooy daal nit bu defaroo rek fu nit ña defaru ña gën a mag te defaru fu ñu toog mën na faa toog kon xikma bu ñu ko waxee mooy baat boo xam ne day gàtt nii tënku waaye maanaame day yaatu mu ne bokk na ci xekkam yi ñu wax ci araab nag mooy képp ku sàkku mbir te jox ko pëste farlu ca nekk ca rek incha allah bu yàggee rek yàlla mën na la koo defal nee ñu tamit képp koo xam ne yaa ngi song benn bunt di ko fëgg li ñu mooy ku ku nekk ci menn mbir sax ca sax ca sax ca wala lajja nee na bu yàggee rek bunt ba ubbeeku nga dugg kon ci misaal kuy dem ci buntu xam-xam di fëgg di fëgg ànd ak ya ca war a àndal njàng maak eh, di sonn ñàkk a nerewe kooku incha allahu rabbi yàlla dina la ko defal képp koo xam ne dafa téye boppam am saka bu ñu ko waxee mooy jàpp mooy téye boppam ba du defal li yi nga xam ne xeetu caaxaan la nee na nit yàlla yi de bu ñuy lim ñi am xel kooka dañ ko ciy boole ndax dañuy xam ne kii de mi ngi mi ngi nekk di def loo xam ne bu duggee bàmmeel jàmm rek la fay fekk bu demee ëllëg yowmal xiyam jàmm la fay fekk waaye koo xam ne yaa ngi topp sa bakkan di foo ko caaxaan kooka ak doonte nuru nga ko yeewu ci wàllu adduna am nga am xel jàng nga wala yu mel noonu kooka ab dof nga li ab dof nga mooy yaa ngi nekk ci loo xam ne sa loraange rek lay doon yaa ngi lor sa bopp te ab dof mooy lor boppam nee na bokk na ci wax ji ñu wax mu gàtt te am njariñ mooy képp koo xam ne doo merloo sa bakkan doo mën a gërëm loo yàlla ndax sa bakkan daa bokk ci sa noon yi seytaane bànneex ak bakkan ak dunyaa sëñ musaaka Ka nee na ku leen fetal daanee nga noon yu bon ya kon li yàllay bëgg ak li bakkan di bëgg day wuute saa yoo xamee ne yaa ngi def li yàlla bëgg rek na la wóor ne yaa ngi fitnaal sa bakkan saa yoo xamee ne yaa ngi topp sa bakkan nag na la wóor ne yaa ngi merloo sa borom yàlla nu ci musal kon nag nee na koo xam ne nag lu neex sa bakkan dong ngay def doo xool ndax loola yàlla gërëm na kooku de gërëm na ko wala déet nee na kooku doo am gërëmal yàlla mukk nee na bokk na ci wax yi ñu wax mu gàtt am njariñ koo xam ne lu la neex dong ngay def nee na na la wóor ne da nga dajek lu xat lu la métti doo ci man dara kon nit day xool li jaaru mu di ko def bokk na ci wax ju gàtt am njariñ ba léegi képp koo xam ne yaa ngi jihaad ak sa bakkan di xeex ak moom nee na kookee de buñ la dugalee sa bàmmeel bu ñu la yooree ca bàmmeel rek nga am foofu ak texe gu mat sëkk mooy daal faatu dugg ci bàmmeel moo tee nga dajek ay fayi suñ borom subhanahu wa taala bokk na ci wax yooyu mooy képp koo xam ne da ngaa topp yonante bi salaa salaam loo bëgg àdduna ak àllaaxira rek am ko danga am texe àdduna ak texe àllaaxira waxaala wax na jaamiu haadihi lxikami aji dajale yi xikma baytan ab bay baytan bayit waaxidan bu di benn fii haadal maana ci mii maana waxoo moom baydu mooy wa kullu man képp koo xam ne soama woor na anir razaili walis ay caay-caay fa innahu naka moom yuftiru dana doge bil fadaili ci ngëneel yi nee na man mii nga xam ne maa doon dajale xikam yi ma la wax ca kaw man sëñ Tuubaa wax naa weneen bayit woo xam ne boo xoolee bayit wi tënk na lee ma njëkk a wax lépp la muy gudd gudd mooy wax naa ay bayit woo xam ne dafa tënk wax ju njëkk ji ma njëkk a wax mooy dama wax ne wa kullu ma sooma ani razaili fa innahu yuftiru bil fadaili mooy képp koo xam ne sooma woor na li jublu mooy bàyyi nga gis nga ki woor day bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi eh, bànneexu awra ne jikko yi nga xam ne jikko yu ñaaw yu bon yi la ku ci woor mooy koo xam ne doo bàyyi nga ko doo ko jëfandikoo kooka de bu dog jotee kañ la dog di jot mooy faatu mooy boo faatoo rek ay lu suñ borom dong ngay am mooy képp wax xam ne muñ nga lu neex loo xam ne lii kat baaxut waaye dafa neex ci bakkan nga muñ ko kooka bu jàllee rek ay lu suñ borom moo cee tegu loolu dafa tënku. mubaarakul ibtidaai lii lu ñu barkeel ak tàmbali la maymuunul intihaayi tey lu ñu barkeel ak mujj wala hoo ñeel na ko ay dan tey euh, ziida yal na dollees ko faydan ay may wala ak bëbbu ñeel ko moom suñu tuwaa ba léegi baytun aw bayt aaxaru weneen fii haadal maana ci mii maana yanzimu nga xam ne dana way maanaa qawli cheyqihi maanaam waxi sëriñam ba radiya yàlla na gërëm allaahu yàlla taala kawe na anhu ci waxoota wax jooju mooy dawlatul baatili nguurug caaxaan nguurug ay neen ay tappale saatun wenn waxtu rek lay doon wa dawlatul xaqita nguurug dëgg nag ila saati jëm na ba yowmal xiyaam nee na sama sëriñ ba taxul nag ñu xam ba xam dëgg-dëgg ban sëriñam la sëñ Tuubaa jamono yi muy doog a jóg bari woon na ay sëriñ Eh, eh, tabarkàlla eh, nee na waxoon na wax joo xam ne man ginnaaw bi wayaat naa ko jël maanaam ma lam wax dama jël maanaam yi ma way ko waaye wuyu ma lam wax mooy moom dafa waxoon ne dawlatul baatili saa wa dawlatul xaq ila saa maanaam nguur wala mbooloo wala daraja lu mën a doon lu ñu sos te fekk teguñu ko ci ak dëgg ay caaxaan lañ ko teg lu mu yàgg-yàgg day mel ne wenn wax day mel ne musu fee jar waxut jubluwut wax ne wenn waxtu la de ci misaal firawna nguuram gi yàgg na fi lool ay ati ati ati ati ati at waaye gis nga bi ko yàllay daaneel ka an tax na bil am si daa mel ne mësta am fi mu toll nii kenn du ko fàttali ko daanaka gis nga ko ba ka yàlla daanelee daal daa mel ne mus musu fee nekk daa mel ne musu fee nekk te bu fekkee nag jëf dañ koo teg ci dëgg lépp lu sampe dëgg nag moom nee na loola lu mu gàtt gàtt sax ci gisin waaye loolu day law ba yomal xeer mi ngi mel ne Moussa yonent yàlla Moussa mi doon xeex ak Firawna gis nga ba léegi mi ngi continuer alxuraan di ko tudd mu nekk ab yonent ñu di ko màggal di siyaara bàmmeelam loolu ñu di ko def waaye ña àndoon ak Firawna ñëpp alak nañ leen amatuñ benn jëriñ daa mel ne mosuñ fee nekk lépp lu sampe ngir ak dëgg rek dafi day dem ba yomal xeer waaye lu sampe ci ay caaxaan mooy dawlatul baatili loola lum nuru lum fi yàgg-yàgg nii ci gisin bis bu fi jóg rek day mel ne mosu fee nekk sëñ Tuubaa nee man dama ko way lii kat waxam la waxee sama sëriñ boobee la sëriñ boobee xëy na muy Cheikh Sidiya man damaa wax ne alxaqu thaabitun wa amma albaatilu wa in ala fa zaahiqun wa saafilu damaa wax ne alxaqu dëgg day thaabitun aji saxla ba faw wa amma albaatilu ndaal ay neen wa in ala ak doonte nuru na lu kawe man maa ko firee noonu ngir bëgg maanaa mi ñëw ndax ba ne wa in ala ndeem kawe na dëgg moom du kawe mooy du yëkkatiku donte mën naa yëkkatiku nii ci saaxiir nag ci gise nit ñi moo tax ñu firee ko wa in ala ak donte nuru na lu kawe fa zaahiqun aji màbb la wa saafilut aji suufe la loola ba tey moog moog li sëriñam bee waxoon ñoo bokk maanaa mooy dafa wax ne dëgg day continuer ba faaw nit bu jógoon di dox ak dëgg donte dañ koo rey teewul loolu day continuer day continuer dem waaye loo xam ne ay caaxaan la nag donte ci kaw nii nur na lu rafet nit ñëpp di këri këri ak nangam dem ak dikk loola dee ko bàyyi rek buus buy màbbu day mel ne lii mosu fee nekk mu tax lu yàgg yàgg rek day màbbu fa zaahiqun aji màbbu la yonente bi salaa salaam keroog ba mu ñëwee ca Kaaba ga di daane xërëm ye ma ne ñoo fa nekkoon dem ci Kaaba ga lu mat ñetti xërëm ak nangam. ñu samp ko fa yàlla ji mooy maye ndox taw bi yàlla ji mooy soo bëggee tukki yàlla ji boo bëggee am soxna def ko muy ñetti téeméer ak nangam keroog ba yonent bi di def fatxu Màkka daa ñëw di daane xërëm yi di wax baat boobu di wax baat boobu jaa alxaqu wa zahaqa albaatilu inna albaatila kaana zahuqa tey de dëgg ñëw na dëgg te mooy islaam du fi jóg ma mukk de daane la caaxaan yi fi nekkoon mooy jaamu xërëm ak lu ko nuru ndax ay caaxaan lu yàgg-yàgg ci màbb rek la jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay mbiram mi ngi samp di gën a yokk waaye caaxaan moom gis nañ ko rek ñam doon xeexandool doo ci xamati kenn kuñ la laajoon ana bàmmeelu Aboo Jahlin looy wax ana njabootam ana ay eh, kenn du ko xam sëriñ bi mi ngi tàmbaleeg noonu tey ci bismillahi rahmaani rahim gu ñaareel gi daa mel ni ko defal ñaari bunt mu ci tudd tur yàlla laay samay wax arrahmaani yàlla mi aji yërëm yàlla mi aji yërëm bépp mbindeef ci àdduna arrahim yàlla mi aji yërëm bépp mbindeef bu ko neex ci àllaaxira mooy suñ borom subhaanahu wa taala ci àdduna yërmandeem ñépp la ko dajal du ko jox kenn di bàyyi kenn ak doonte ñu ko gëmul sax bu dee àllaaxira nag ñamu santoon gëm ñu gëm tey góorgóorlu ñoom rek ñoo fa yayoo li nga xam ne moo di yërmandeem wa sallallahu yàlla na yàlla dolli tedd nga ala ci sunu taala na moom yàlla ala sayidna ci sunu sang muhammadin muhammad wa ak ay ñoñam wa sahbihi ak ay saxaabaam wasallamata mu musal leen ñoom ñëpp tasliman ak mucc qaala wax na ibnu sayxihi doomi sëriñam ba allazi ka nga xam ne laa yaxmadu du sant fii nafsihi ci jëmmi boppam si wasmihi ndara turam wa muhammadu te moo di muhammad alhamdu mboolem xëy di cant yi lillaahi aji sax la ñeel yàlla allazi yàlla mi nga xam ne xada satara suturaal na ma maa ibi samay ayib wala ibi samay ayib wa kaana te mu nekk lii ñeel ma wa nasara te mu dimbali ma mu kiy wax day xamle boppam moom de baayam mooy sëriñam doomi sëriñam la Maamor Anta Sali bi fi bi mu fii nekk sëriñ Tuubaa moom rek la jàppee ab sëriñ xam nga Maamor Anta Sali ci tariqa alqaadiriya la nekkoon incha allah mu ne moom mii di wax nag gisul ci boppam dara lu rëy ci jëmmi boppam lu dul tudde gi ñu ko tudde Muhammad loolu daal lu rëy la ci moom maanaam jubloo te wax ne du sa amul dara lu ko yàlla defal lu jar sant day déedéet waaye dara gisul ci boppam dara daal ci jëmmi boppam lu muy sagoo lu dul tur wi ko tuddee mu Muhammad loolu neex na ko lool lool day wane ni mu bëggee yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa ngi sant yàlla ak cant ñeel na yàlla mi nga xam ne bari naa sikk lool mu suturaal ma ba sikk yooyee nëbbal ma ko ba kenn xamu ko te nekk ak man mooy lu ma bëgg mu defal ma ko lu may ragal mu jañal ma ko te di ma dimbali fu mu fu ma ma toll ñoom loolu xeetu waxin la ci ñoom daa am lu ñu tuddee ayib ci ñoom mooy fu ñu teg yàlla buñ gënee xam yàlla ëllëg dañuy rëccu fañ ko tegoon gën koo yokk mi ngi mel jamono yi ngay jàng bind li nga bindoon buñ la ko buñ la ko dencaloon xaar man xaar ba nga mën a bind lool ñu indil la loola da ngay rus da ngay rus lool mooy bu njëkk la nga daan bind ak léegi li ngay bind dey wute na lool ñoom seen dox ci yoonu yàlla noonu la subhaanahu soril naa ko lépp lu yellu ci moom moom yàlla rabban mbir mu buur kariman buy aji tedd jaada maye na jaada tabe na liye ñeel bima ci loo xam ne xad xaada wommat na li sukrihi jëm ci ak santam waxoota moom yàlla allasi mooy buur ba nga xam ne jaala def na xusnal adabi rafeti teggin yux fii di nëbbu jahalatan ak réer wa xubxa nasabi ak bonu askan wa xasata mu jagleel ahlal ilmi ñooñ xam-xam wal aadaabi ak ay teggin bil fawsi ca tuuxu ga bi sowaabi ca jubga ga wa sawaabi ak yool ba mu ne saa borom moom subhaanahu lépp lu ko yéefari wax ci wax ju ñaaw daa am doom ak yu ko nuru ak yàlla dafa nay lu ne wax nañ ko ko laqad samia allahu qawla allasina qaalu inna allaha wax nañ ko daa ñàkk yadullahi maglula mooy yàlla daa nay mboolem luñ ko waxta yilu suñ borom subhaanahu wa sëñ Tuubaa nee na loola day dàq naa ko maa ngi ko koy soril le buur la bu tedd boo xam ne man de sëñ Tuubaa may na ma loo xam ne moo tax mënta ñàkk ma di ko sant yàlla moom yi may wax kat mooy ki nga xam ne moo jël rafeti teggin képp ku ko am ko am teggin yu rafet bu fekkoon ne bokkoo ci askan wu kawe tamit dañuy jàpp na ci askan wu kawe nga bokk ngir na ngay jëflante na mu rafete waaye képp koo xam ne nag da ngaa jëngul sax jëngoo amoo xam-xam waaye rafet daa jàng lool moom day jëfi jëfi borom xam-xam rek lay def yàlla moom it moo jël woroom xam-xam yi nga xam ne dañ cee boole amaale ay teggin mu jagleel leen ñu ñu texe texe ga gën a màgg waaye teg jagleel leen ñuy tegu ca yoon wa te it suñ borom jox leen tuyaaba joo xam ne tuyaaba ju rëy la summa solaatu topp dollee teeral bi salaamin gu ànd ak dolli gu wóolu raaxin guy aji kawe alal la si yàlla na nekk ci yonant ba nga xam ne irtaxaa yéegoon na kawe woon na alal buraaxi ci kaw al buraax sayidina sunu sang ba addaa yi kay aji woo kay aji woote ilal xallaaxi jëme ci aji bind ja bi ahsanil aadaabi ci gën gaa rafetee teggin fil axlaaqi ci jikko ya muhammadin turoo moo de muhammad wa alihi ak ay ñoñom asubbaaxi ña di way jiitu ñëpp wa sahbi ak saxaabaami alxaawiina ya di way laq baaqi ngëneelul yàlla mi aji des ja nee na euh, maa ngi julli ak a sëlmal ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne moom rek la yàlla jagleel mu yéeg ci kaw alburaax mosuñoo dégg kenn ko ne yàlla yéega na ko ci kaw alburaax mu ne kooku dem sunu sang boo xam ne moom moo fi nekkoon di woote jime ca yàlla waaye nag woote lan la doon wootee mu ne da doon woote ci ay teggin yu rafet luy loolu mooy yonante bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee daa wax ne innama bu'ithu li utammima yàlla def ma yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi gis nga ko kon ndeke ngir defar jikko yi lool dong moo waral julli yeeg woor yeeg lii xaraam na lii dagan na lépp ngir bëgg a defaru rek loolu aw yoon la ngir defaru kon nag suñ borom subhaanahu wa taala daanaka lim sant jullit bi cosaan la mooy ay teggin lu ko sant mu def ko rek da koo sant ngir bu defee loola mën caa jëlee ay teggin mooy rafetu jikko mooy jikko yépp rafet jikko yëpp rafet. mooy yonante bi na ca loolu la daan woote moo tax baka alxuraan di tagg ca loola la ko tagge wa innaka la ala xuluqin azim suratul xalam nee na kooku mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko waajuram ay waajuram tudde woon wala boog maamam abdul mutalib maa ngi ko koy ñaanal di ko ñaanal ay ñoñam ñi nga xam ne waa këram ñi mbokkal bokkal deret te ñu gëm ko nga xam ne ñoom ñoo raw ñëpp ak saxaaba yi nga xam ne ngëneelalu suñ boroom ak ay ngërëmam ñoom ñoo ko làq fa athbatu saxaloon nañu ñoom saxaaba ya an nusxa laa biriga bi ci lu dul muy xëccoo lu leen ko mayoon mu ne it ngir malaku mooman nañu an nufuusa bakkane bi istirqaaqi ci ak njaam ci jàpp jaam fa atlafu sànkoon nanu al amwaala alalee bil infaaqi ci dundale ngir yàlla bilaa riyaay naasi ci lu ngistal fa nit ña wan nifaaqi akuk naafiq wa wathiqu dëgërloo woon nañu bin naafici ci yàlla mii aji jariñ arzaaxi kadib wërsa wërsa galaa kon tawakkulan ci ak wéeru alay ci moom fil arzaaxi ci wërsëg yi nee na saxaaba yi yooyu mu tuddoon ñoom day lañ nekkoon mooy dañ daan laabirante te daawuñ xuloo maanaam ñoom dañuy tegu ci ak njub kuñ gis nekkoo ca loola wala dangaa juum ñu woola nang ci yar ak i teggin leeral ne la fii ka dangaa juum lii nii la lii nii la su ko defee kañ ko wax da koy nangu te ko koy waxit yàlla doo nga tax mu di ko mu di ko def nee na lan moo waraloon loola mooy ñoom kat dañ daawut waxee bakkan daawuñ jafe bakkan ndax ñoom seen bakkan dañ koo jàppoon mu nekk ab jaam maanaam ñoom seen bakkan moomu leen ñoom ñoo ko moom Sëñ Tuubaa ne malaktu nafsiya man maa moom sama bakkan sama bakkan du ma def loo mukk lu yàlla gërëmut kon ndekete juuyoo yi nekk ci pénc mi werante yi léeg nga gis ñu ñu tudde ay borom xam-xam kee la kay wax kee wedd na lu ko waral mooy waxee bakkan waaye bu ñu dindee bakkan teg nee di wax ngir jëmmi yàlla wax dëgg yàlla xam-xam wuute ko du bari te wuute ko sax ay déggin lay doon rek ay déggin lay doon waaye bu demee ba boroom xam-xam bu borom xam-xam diw waxee nangam ñu laaj ko ka mu ne ah kooku nangam daa jàngut alioom daal koy xas suba la muy tekki mooy yàlla gi da caa génn moo tax. borom xam-xam yu njëkkee bu ñu leen masana wax ne leen borom xam-xam diw de moo wax masala nangam dañ naan kon de xam naa ne da koo rëcc. wala kon de xam naa yaa déggul lam la wax waaye boo demee lii la la bëggoon wax wala moo ne xanaa kenn daa matut waaye moom bëggutoon wax nangam xam naa lii la bëggoon wax dañ koy rafetal fexe ba wutal ko aw lay wu jub waaye moom de ku bari xam-xam la taggu ko loola ku moom sa bakkan yaa koy def nee na ñoom saxaaba yooyu dañ daan jël seen alal di ko dundalee ngir yàlla waaye di def ngir nit ñi daaw leen tax a jóg akuk naafiq yàlla ñu ci yàlla musal nee na ba tey li leen mayoon mooy ñoom yàlla la ñu jàppoon ab wéeruwaay ak am dëgëraay dégg nga euh, yàlla lañu ñu jàppoon ki nga xam ne moom la ñuy wéeru dégg nga moom la ñuy dëgërloo suñu borom subhaana wa taala te suñu borom am na ci ay turam ay naafi mooy aji jariñ ji am na ar razaq ki nga xam ne mooy joxe wërsëg kon nag képp ku wéeru ci kuy joxe wërsëg te mën a jariñe kooku war ngaa mën a am njariñe wit di joxe ndax yow doo jeexal yow da nga jeexal waaye da ngaa wéeru ci koo xam ne moom du jeexal nee na moo tax dañ daan dépassé seen alal rek ngir yàlla kaanoo nekkoon nañ ñoom saxaaba yi vabintilaaxi di boromuk boy mooy fëx ilal uxraa jëm àllaaxira is ngir waajahoo jàkkaar la woon nañu ab darrata wujju wujju wujju àllaaxira euh, te mooy di àdduna bi talaaxi ca fase ma nee na saxaaba yi seen mbir yëpp dañ ko doon jëmale àllaaxira luñ daan def rek dawuñ bel bay bàyyi xel àdduna tabax sa adduna ba mu jag sa kër goo xam ne la waaye sa bàmmeel waajaloo fa dara loola sànkute la ñoom saxaaba yi nag lu ñu daan def rek dañuy dawal mu jëm àllaaxira rek ndax àdduna ak àllaaxira dafa mel ne ñaari soxna lañu ñoom dañoo fase adduna jëm ci àllaaxira dañoo wan ginnaaw adduna faarewuñ ko jëm àllaaxira rek lam yatruku masuñoo bàyyi amran ndigal minal mudabbiri mu biri mu bàyyi ko ci yàlla mi aji eh, taxawe mbiri jaam yi te di ko seetantal alxalaaxi ka di bindaa kon mos ñoo bàyyi ndigalul yàlla li zuxorin ngir tiit aw imlaaxi wala ngir jàq dégg nga wala euh, wala ngir ñàkk bu la neex imlaax day firi ñàkk day firi njàmbaxle mooy kontaan ba ëpp te moo gën a jub fii ci maanaam yi li zuxorin ngir tiit aw wala ngir kontaan ba ëpp mooy njàmbaxle mooy bég ba ëpp maanaam ñoom saxaaba yi mosuñoo bàyyi ndigalool yàlla mu neex ak mu naqari xam nga léeg euh, ndigal bokk na ci li la koy mooy da nekk ci ay jafe-jafe da ngaa xat da ngaa tiit da ngaa bëri ay problème tax nga bàyyi ndigalu suñ borom det suñ tubaa radiyallahu anhu gis nga ba mu nekkee ca gaal ga ñi ngi koy yóbbu di ko sànki ci xalaatu tubaab bi julli jot na ak nangam loolu lépp téewut ba julli jotee dafa dafa jóg ngir joxe waxtu suñ boroom bi bañ ko xatalee ca gaal gaat tiitut ne su ma duggee ci ndox mi damay lab déedéet kon gis nga nekk na ci ay situation yu metti waaye taxul nag mu rab rab yi taxul mu tiit ba tax mu bàyyi ndigalu suñ borom lu jafe la mais saxaaba yi dañ daan xeex ba noppi di ci boole di julli kon tiit du tax ñu bàyyi ndigalal yàlla léegi nag waxuma la tiit waaye <laughs> tabaarkalla ñun dara duñu jot ñuy bàyyi ndigalu suñ borom di bàyyi julli nee na wala kontaante bu ëpp imlaaq léegi tey jii nii waa na koo xam ne tey ak màggal dugg yi génn yi lekk bu julli jotee mu julli day nekk ci loolu rek faat waxtu julli wa cant yi ak nangam wala nga am ngénte wala céet nangam nangam jigéen ñi mu ma leen la ñuy teg seen bopp yi ak nangam ak fecc ma ak tàccu yi ak solo ya tax na moom ñoom ñëpp dañuy bàyyi julli bu dee góor ñu ñàkk fay dañuy léeg-léeg ñu bokkaale ca góor yi njóobeen yi <laughs> yal na yàlla yërëm kon daal tiit mu tiitaange wala wala mbégte mu leen dikkal du tax mukk ñu bàyyi ndigal luñ bég bég bég julli jotee ñu dagg dagg folool dem julli ci nga ne ko kon nuñ meloon mu ne balde am kay mooy sabatu saxoon nañu fil amri ci ndigal bil ashwaaxi ànd ak cofeel ànd ak cofeel ya lam yulhihim mosuleen a yitteel anhu walis ndigal lu suñ borom rinal ashwaaxi koomi jaya mooy koom ma nekk ca marché ba nee na saxaaba yi ñu daan jëf ndigal dañ ciy boole kontaan bu julli jotee dañuy bëgg bu koor jotee dañuy bëgg bokkuñu ak ñi nga xam ne dañuy def ndigal di ci boole xol bu naqari déedéet nee na tamit xéewal ga ñuy jëlee ca marché ba commerce bu neex ba ak xaalis bu bari ba loola mosu leen a fëkk ba tax ñu fàtte ndigalu suñ borom ma ne ko ak ñoo wuuteeg commerçant yi xew léegi ñu bari ci ñoom xanaa jaral na leen xëy suba di dajale julli ba wàcc gee doog a julli wala boog ñu faat ay waxtu yu bari ndax lan ndax xala seen xel xalaatu dagg njaay ma dem jaamu ji yàlla xalaatuñ ko. wa kashafu wuññi woon nañu du junnatal aafaaxi lëndëm lëndëmi gox ya bil ilmi ci xam-xam wala amali ak jëfe xam-xam wala wifaaxi akuk dëppoo. akrim yéem naa ak tedd nga bihim ci ñii bihim ci ñoom saxaaba yi min min saadatin ci ay sang xusaaxi yu di way ñaw xaasu laqoon nanu alxalaawata neexit wa neexitu jaamu yàlla minal mazaqi ca mos ga nee na saxaaba yi day biñ eh, bi fi yonent bi salaa bàyyi ko wala ak ba mu fay nekk bépp gox bu ñu dem maanaam ab dëkk bu ñu dem fekk dëkk ba lëndëm dëkk ba lëndëm dañuy leeral dëkk ba luñ koy leerale ci ñett xam-xam bu set ak jëfe ak ak dëppoo maanaam lëndëm lëndëm gi mooy lan mooy bu ñu fekkoon dëkk bi lëndëm amul courant ñoom dañ fiy def courant ba dëkk bi leer naññi loolu mooy lan loolu mooy dëkk bi bu lëndëmee ci bokkaal yàlla ak ñàkk wéetal suñ boroom ak ay ay caaxaan ay jëf yu bon ñoom buñ duggee rek ci seen xam-xam ak jëfee xam-xam ak dëppoo xam ne duñ fi nekk di werante mais nga ñaari borom xam yu werante ku nekk naan diw li mu wax amut diw jàngul nangam wax dëgg ka xamut diine moom day jaaxale danaa man kat ñoom laa yaakaaroon ñu gindi ba ñoom ñi ngi xuloo ne ñoom duñ duñu royukaay waaye ñoom dëkk bi bu lëndëmee ci ñàkk a xam ñoom bu ñëwee dañ koy leeral ci xam-xam kon ndekete xam-xam da ab làmp la boo xam ne da lay niital nga mën a leeral waaye ndekete ñàkk xam-xam ak lëndëm la te sëñ bi dana ko wax ca kanam sax kon ñoom dëkk bu ñu dem fekk dëkk ba dafa lëndëm këriis ci bokkaale yàlla mooy yàlla ak juba di dañ koy leeral waaye ci xam-xam lañ koy jaarale kon ndekee ab dëkk bu fekkee ne dañoo tegul ci aw yoon bul nekk di sonn di wax wax ju bari jàngalal nit ñi rek ñu xam bu ñu xamee rek daa di yeewu bu ñu xamee nga yar leen bañ mën a jëfe waaye bu ñu bu ñuy jëfe tamit bu ñu fa nekk di xuloo ndax da leen di tardeel sëñ Tuubaa nee na saxaaba yi yéem naa leen waaye sang yu baax yi nii ñaw yeewu lijjandi seen àllaaxira bañ a lijjandi seen adduna adduna ma ne su koo ñàkk lijjant waaye bañ koo jox yitte bu ëpp moo tax mu wax nee na ñoom yéem nañ ma tayit jaamu yàlla daa am neexit bu ci nekk boo xam ne ñoom ñamoon nañ ko ba tax duñ ko bàyyeeti ginnaaw mukk gannaaw ba nga xamee ne mos nañ ko kon nag alayhim yàlla na nekk ci ñoom riddan ngërëm wala xii sos dinaa dajeek bihi ca ngërëm loolee manix tawaa kalaq na siyaadatal itlaaxi canguk joyal muhammadan ta moo de muhammad salaa yàlla na dolli tedd nga alay ci moom albaqi yàlla mi aji des ja wa alihi ak ay ñoñam wa bi ak ay saxaabaam al atbaaxi ña di ay déele mooy ña di ña nga xam dañoo kawe ba mel ni asamaan nee na maa ngi ñaan saa borom mu defal leen ngërëm loo xam ne man sax dinaa profité ci ngërëm la ngërëm loolee ma leen ñaanal danaa ca jaare yàlla may ma ma dajeeg ka nga xam ne mboolem luy xeetu ak cang moo ko làq siyaadatul itlaaq mooy càng gépp mboolem luy ak càng ak tedd nga rek moom moo ko ngëp ca loxoom te kooku mooy yonante bi sallallahu alayhi yàlla na yàlla def ci moom salaatu wa ak ay ñoñam ak saxaaba yi nga xam ne dañoo kawe woon ba mel ne ay ay asamaan yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp asalaamaaleykum hada wa inni l yowma du ijaaba baada benn benn nag ijaabatin ak zawil inaabati ngay jàng ci ndaxu mu ne xaasa yëgal ne wa inni naka man sëriñ Tuubaa al yawma tey jii day zu ijaabatin boroomu ku wuyu laa baadal lenn ci taalibe ya zawil inaabati ña di tuub ña bu woroom woroomik tuub nanu nasman aw way xawaa woo xam ne làq na ta adduban ay tegginu liyata addabu ngir ngir tegginu wa daaka ta loolu te loolu wajaba war na is ngir kullu man képp koo xam ne roama sàkku na ittibaan la waroon doon waaye way we tax ak topp yàlla bi xayrihi ci lu ay teggin <clears throat> fa innahu naka kookee day naka moom yux rimu dees na ko xañ fawzan ak texe wantifaan ak ak jariñu mu tey de li ma tax a jóg mooy tontu lenn ci taalibe yi nga xam ne ñu baax lañu tey tuub di dellu ci yàlla fu ñu toll al inaabatu mooy dellu rek dellu ko ci yàlla lillahi marjiukum wa anibu ila rabbikum taaliba yooyu dañoo ñëwoon sàkku naa leen defal way woo xam ne day ëmb ay teggin ndax ñoom dañoo bëgg a am ay teggin mu ne lool nag wax dëgg lu jaadu la lu war la ma def ko ndax ka teggin mooy loo xam ne képp ku bëgg dara ci yàlla te jaarewo ko ci ay teggin ñaar dan la dal mooy loola doo ko am tey yàlla dan la xañ ak texe ak ak jariño yàlla nañ ci yàlla musal euh, tegginu nag mooy rek euh, lépp looy def nga bàyyi ca xel saa borom subhanahu wa taala daa teggin yoo xam ne sa digganteeg sa boroom la am yoo xam sa digganteeg nit ñi la te loolu téere bi dana ko wax bu defee ne teggin bu ko olofi yi rek mooy koo xam ne daal ni ko nit ñi di kii rek day wax lii di wax di sëgg nangam déedéet dafa dafa yaatu dafa yaatu lool lu téere bi gën a dem dana gën a leer waxoo moom teggin xayru kansin mooy ngën gi ndàmm mooy ab denc fi daare ni ci àdduna ak àllaaxira wa xayru maa ngën gi la nga xam ne i'taza tedde na bihi ci moom zu isin boromuk tedd nga li annahu ngir naka moom mu nawwirul janaan mu munawwirul janaani aji leeral xol la janaan kama yuqarribu naka lay jegeñele ilal jinaani jëm ci àjjana ya wa yuujubu te dana waral al maddaxa tagg wa la dal fa dëkkandoo ya kama yubaxidu naka muy soreele xanin niiraani wali sawar wali sawara ya nee na gis nga am ay teggin mboolem lu nit ki di am mboolem lu nit ki di denc muy nekk lu foor ami teggin moo ko gën eh, sunu sëriñu daara sëriñ Mor Fall xafidahullah wa raa day faral di nettali lu baree baree bari nee na nit ki loo mën a am lu du teggin mën nañ laa booleeg loola duma la mën nga am xam-xam bu bari ñu bis ñëw ñu duma la alal ju bari noonu bokk ci askan wu kawe noonu waaye daal dañ koo duma ndax dafa am ay teggin moom daal da doon yaru yaru la ba ñu dóor ko <laughs> loolu moom nee na dee su ko dégg ndeysaan yàlla na ko yàlla fayal moo doon jàng alxuraan ci njaareem baax wala kulli nee na lu nit ki di mën a denc ci àdduna ci àdduna si rek ay teggin moo ko gën lu nit ki di tedde tamit tedd ci ay tedd gën xam nga nit mën naa nit nit ñi mën nañ koo fonk ngir alal ju ma am amul njariñ day jeex mu bàyyi ko fi walla askan wu kawe wu mu bokk amul njariñ day faatu mu jeex tàkk nekk ay yax waaye nag tedd ci am ay teggin am ay teggin nee na loolu mooy tedd nga dëgg ndax nee tedd nga day leeral xol di la xëcc nga jege àjjana di la di la bëmax ngay sori sawara moom ami teggin tey day tax nit ñi sopp la bëgg la rawatina say dëkkandoo a ah, diw de wax dëgg ni mu amee teggin moom de bu ñëpp maroon a mel ne moom lu tuur ndox ci buntu kër jàmbur du du kër jàmbur du moom daal tabarkàlla rek neex naa dëkkal tax Sëñ Tuubaa nee na al jaaru xabla daar bala ngaa dëkk fenn dafa wut pàkk xoolal dëkkandoo ya fa nekk ba noppi boo ko manee biñ sàkk ci man loo nag fa xumtu jóg naa musri'an may aje gaaw ilal jawaabi jëm ca tontu la wa artaji ta danaa yaakaar arrida ngërëm maxa sawa bi ànd ak yool ba moo tax ma gaaw jóg nag jëm ci tontu mbokki taaliba yooyu ci loolu ñu sàkk ci man ma jóg defal leen ko maa ngi yaakaar yàlla defal ma ci ngërëmam defal ma ci toyaabu ju rëy madmuunahu la mu làmboo moom téere bi nasrul waliyi wesaru waliyu ba alxaaji te moo di alxaaj waxoon wa artaji te danaa yaakaare bihi ci tontu gi may tontu mbokki taalibe yu wala téere bi xawa alxaaji fajug aajo li jamaihi ngir ak dajaleem ngir ak booleem moom téere alxaaji moomu maxaxti saarin ànd ko gàtt jullama li ëpp ci la nga xam ne farraqahu tàqale woon na ko al musannifuuna way taalif ya alqudama ña di way jiitu alqudama u la doon ñu dagg ugi ngir way wi wa kullu ma te lépp loo xam ne xalla néew na bilik tifaay ci ak doy xayrun moo gën minal kasiiri ci aji bari ja zilaanaa yi lay boroomi coona euh, sëñ bi nee téere bi nag lim ëmb mooy la nga xam ne alxaaji moo ko wesaroon te waliwu mag la woon loola laa jël rek man way ko ngir tontu mbokki taalib yooyu doon sàkku loolee mu nekk ay teggin yu mat sëkk maa ngi yaakaar suñu borom mu defal ma ci fajug aajo li tax ma lu tax ma jël wayam wii nag mooy damaa gis ne ñaar daje na ci muy mboolem lu borom xam-xam bindoon ci wàllu teggin moom dong tënk na ko ci téere booba ba noppi nag mu gàtt lool ba noppi mu gàtt ndax lépp loo xam ne gàtt na te ëmb na njariñ la mu war a ëmb moo gën. nga yor lu bari mu nekk ay téere téere téere téere téere yu baree bari bari dajale ko daa bokk ci lii noppal ab jàngat mooy téere bi gàtt te lu war a nekk ci téere rek nekk ca lool nag kii way mooy mooy def technique boo xam ne dana ko ci man fi la nit mën naa wax wax ju gudd lool nit ña wax ñaari baat mu tënk la mu lépp mu gàtt loolu nag xekk ma la ak xeetu yàlla moo koy may ñenn nit ñi kon daal téereb alxaaji moom yi li tax ma jël ko mooy mboolem lu borom xam-xamee di wax ci wàllu teggin moom maga ca ba noppi nag guddul dafa gàtt te loola day noppal aji jàng ji lu mel ni waxoon na ko ci masalikul jinaan nee na nit ñi bindoon nañ ci tasawuf waaye jàngkat yi nanguwuñ koo jàng wala ñu bari ci ñoom dañ ko dañ ciy tayal ndax lan ndax lañ lañ ca bind daa bari lool xam ne koy jàng da nga yàgg moo tax man ma ñëw ngir tënku ko gis nga masaalik ni mu way naa ko naw man aw way xawaa woo xam ne làq na almanafia njariñ ya bi fadli man ci ngëneelul yàlla mi nga xam ne waada digg na an a ba dana jañ lor ñel jullit ñi laalla nii ndax leeman axwi danaa làqe bi ci téere bi aridwaana ngërëm la wala am na ak kóolude yowmal xawfi bisub ragal ba wala xufraana akuk njéggal nee na way naa ko de mu nekk way woo xam ne bari na ay njariñ lool lu ci nekk dëgg ku ko jàng na ko xam waaye nag du sama du sama njàmbaar de yàlla moo ma dimbali rek ci ngëneelu suñ borom ku am tawxiid la yàlla mi nga xamee ne moo waxoon ne inna allaha yudaafiu an alladina amanu ak wa kaana xaqan alayna nasrul muminin moo diggee na ñu dimbali te danañu jañal lor ñun jullit ñi kon nag jullit bu jullit yoo gis ñu sonal leen lool benn waay waxoon na yéen jullit ñi alquran moo wax ne wala wala yajal allahu lil kafirina ala al muminina sabila maanaam yéefar yi mënuñoo amuñu aw yoon mukk wu ñuy dale ci kaw jullit di leen lor seen téere bi moo wax loolu te ñi ngi seet julli ñi ñu di leen néewal doole lu waral loola nee na kooku ne ko da ngaa siidlul wax ji yàlla muminuun la wax wa kaana aqan alayna nasrul muminina ak wala ne jaal allahu lil kafirina alal muminina la wax waaye waxut muslimina léegi nag ngëm ngëm nga moomatut mumin la yàlla di waxal ñi nga xam ne am nañ dëgg dëgg ngëm moom yàlla dana leen aar dana leen sàmm waxut na dara du leen jot de waaye duñ leen not duñ leen not mukk waaye bu ñu demee ba nga xam ne nag dañoo nekk eh, ay jullikat ay woorkat te ngëm nga nekkatu fi nag moo tax ku ñu jéemal dara mënal ñu dara ci ngëneelu yàlla moom nga xam ne moo wax ne dina eh, daqal ay noon dina aar jullit ñi dina leen jañal lor ci ngëneelu yàlla moomee laa waye téere bi a ah, dama ko way de tey am yaakaar ne yàlla dina ma ci defal ngërëmam dina ma ci defal ak kóolute mooy ak muccu ku sax dàkk nga ne benn lor du ma jege rawatina fa ko ñëpp di gën a soxlaa muy ëllëg yowmal xayaam bisub ragal ba mu defal ma fi tamit ak njéggal aleykumu maa ngi leen di dénk yaa machara tullaabi yéen mboolem way sàkku ñi ay teggin suma aleykum topp maa ngi leen dénkaat bi dal jawaabi ci lii tontu ndax fii nekk na ci téere bi minal axlaaqi ci ay jikko wal aadaabi ak ay teggin maa loo xam ne sa yaquudukum xalset na leen a womat ila sowaabi jëm ca jub fii nekk na ci téere bi minal irshaadi ci ay jubal wala ifaadati ak njariñ maa loo xam ne laa yemalu du yokkat minhu mukk minhu ci moom laa yemalu du yokkat mukk minhu ci téere bi du iraadatin boromuk taalibe wala boromuk nammu ay teggin mooy ku bëgg ay teggin nee na kon nag yéen ñi ko doon sàkku ak mbooleem koo xam ne bëgg ay teggin moo la tax a jóg képp ku bëgg a am dara ci suñu borom maa ngi leen di dénk téere bi di leen ko dénkaat mooy maa ngi ci bàyyiloo xel ndax téere bi aljawaab la ko tuddee ndax dañ koo laaj mu tontu téere bi de ay jikko yu rafet ak ay teggin yu rafet yoo ci ne moo ci nekk yoo xam ne ku ca ku ko topp dana la womat ba tegle ci ak njub li ci nekk ci jubbanti nit ak jubal ko ak ay njariñ yu jullit mën a jariñoo koo xam ne day bëgg na lu baax te bëgg ay teggin te bëgg a tegu ca yoon ba moom du ci yokkat mukk du ci du ci du ci tayel yal na yàlla defal dégg ak topp te defal nu Euh, téere bi suñ borom may ñu taw féexuk ñu mën koo jëfee te jëmmi yàlla rekk tax rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu xalaa li allahuma fi xayaati وجل فؤادي وتنال